bismillaahi rahmaani rahiim bokki taalibe murit yi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara te di leen ndokkeel ci tawféex ji nga xam ne sunu borom subhaanahu wa taala baaxeeti nañu ko muy ñu yendu jant boo xam ne ba ñu xëyee ci juróom-ñetti waxtu ba léegi ñoo ngi nekk ci diggante alxuraan al ak xasaay Cheikh Al Khadim muy tawfeex yooyu ñu ciy sant yàlla bu baax waaye di ci gërëm borom Tuubaa nga xam ne moo ñu ko baaxe mu mel ne waxtaan wi xaw naa guddi ngir lu ñu waajaloon ca takkusaan suñ demee ba julli timis soog caa jublu day mel ni guddi na te li des ci liggéey bi itam bari na mu mel ne ñun duñ ci sori ndax sëñ xaadim njaay miy toog ca war a taxawee jataay bi mate ko sëkk euh, suñ ko teewloo mën nañ cee jële luñ mën a jariñoo ngir waxtaan yi dafa tëdd ci li ñu fi dajale muy xasida yi njariñ yi nga xam ne moom la xasida yi làmboo ak nun taalibe sëriñ Tuubaa yi nu nuy def ba mën a jariñu ci xasida yi yooyu lañ bëgg a waxtaane sëñ Xaadim dina ci ñëw ci gën ko tasaare dañuy jàllale benn yëgle boo xam ne nun ñii fi teew noo ko bokk ngir bis bii bisu xasida la ni nga xam ne noonu lañ ko doon yëglee léegi ci bis yi ko jiitu woon ak bis yi ci topp waaye un lu xasida dañoo baaxoo suñuy def bisi xasida yi ci gox yi wuute ci biir réew mi ak bitim réew ba weeru gàmmu dikk ñun ñépp ñu bokk daje Tuubaa ci benn pàkk bu ñuy wax jaalibatal maraqib ci kër suñu jëwriñ sëriñ Amsatu moom sëriñ Shuaybu def fa màggalu xasida yi màggal googi nag nun taalibe sëriñ Tuubaa yi dox ci xasida yi noo koy defal sëriñ bi li waral ñu di ko defee kër sëriñ am sa am sa itam sëñ am satu dafay kenn ci noonu di sunu jëwriñ joo xam ne sëriñ bi moo na ko gàttandoo damay faral di wax ne sëriñ am satu woote wu ko nun taalibe yi noo ko jàpp di ko defee fi moom daf ñoo baaxe jàppu bis bi sax ci nun la aju nooy jàpp bis bi ne ko bi sàngam lañu jàpp sëriñ bi soog ci ànd ak nun léegi lañ ci doon waxtaan man ak sëriñ Ibra Gueye ak sëriñ Njaay xasida jàpp na lu bis bi waaye jotuñu ko woon yëgal sëriñ bi ndax ci màggalu Daaru Xudoos gi lañ ko ko daan yëgal nu am ngànt ba demuñu fa léegi lañu jox kook moom yëgal ko ne ko jàpp nañ ko sëriñ bi ne ànd na ci jàpp goo gi mën nañ koo tasaare ndax nim nu mayee ndigal ci ñu jàppe ko fu nu soob nu danoo am ngor bu toll ne moo koy njëkk a dégg keneen ku koy dégg dégg aw desam sëriñ Amsatu dégg na ko ba noppi ànd na ci desu sëñ Amsatu nag lañ bëgg séddale murit yi bis bi ñoo ko jàpp ñaari fan ci weeru janvier di dëppoo ñaar fukki fan ak benn wala ñaar ci weeru gàmmu ndax da daan tëj gàmmu gi ci gaawu bii mujj ci gàmmu gi mën naa doon ñaar fukki fan ak juróom-ñeent moo tax ñu def ko gaawu ba ko jiitu muy ñaar fukki fan ak benn wala ñaar fukki fan ak ñaar noo ngi koy yëgal murit yépp muy bis boo xam ne lii sëñ Xaadim di bëgg waxtaane muy njariñu xasida yi njariñ liñ ci mën a jële képp koo xam ne yëg nga ci sa bopp lu toll ne tarafatal ayni ne jëlee nga ko ci xasida yi amel nga ak cant xasida yi kon màggal googee sag màggal la màggal bu ngeen fi dégg nag ña yaakaar boroom màggal googee lu war ca màggal ko ñoo koy def ñoo koy taxawee olof nag dafa wax ne ñi maanaam ragal péete day xañe wërsëg ay gaa yi nanu ñeme péete sëriñ bi moo nu féetale xaside yi nanu nangoo féetale xaside yi te ñeme ko suñ ko defee duñ ko rëcc fii duñ ko rëcc fa ñu jëm ndax xaside yi kat mbooleem njariñ yi sëriñ bi lijjante ko suñu borom bañ teg ko ba mu teg ko ci loxoom mu def ko ci biir xaside yi njariñ newatul fenn njariñ newatul ci kenn njariñ yëpp daj na ci xaside yi kon fu waay doon njariñ fu dul ci xasida yi yëgal ne njariñ toxoo na fa mi ngi ci xasida yi te dootu fi jóg kon nan ko yittewoo xasida yi mooy tawféexi sëriñ bi xasida yi mooy baatinu sëriñ bi xasida yi mooy mbootum sëriñ bi ca fu ngeen dégg na sëñ bi yàgg na fa ci boromam fu ngeen dégg na sëñ bi yegg na fi ci sallallahu alayhi wa sallam na ngeen yëg de xasida yo ñoo ko fa yóbbu sëriñ bi fu mu toll xasida yoo fa teg ci la jaar ba am lim am bàyyil nu ko fa ku fa jaar lu mu fa bàyyi sab cër kon nan fonkat xasida yi màggal googi nag na ko ñëpp waajal kurél gu ne ak gox bu ne na nga ne màggalu xasida yi ñaari fan la ci weeru janvier boo demee nga waajal ko nanu fexe ba sëriñ Amsatu moom sëriñ bi dara du ko ci war lu dul sol mbubbam jiite liggéey bi waaye lim ci war a war loolu lépp nan ko def addiya féete ko ca ndax kat baaxuk sëriñ Tuubaa moo nu may nun nu mën a toog di jàng xasida yi waaye su du woon loolu ku dul doon doomi sëñ tubaa ku amul darajay doon doomi sëñ Tuubaa doo am maxamum jàng xasida sëriñ Moustapha Sy moo jàng xasida ba sëriñ Fàllu tàggoog sa ko bi mu noppee sëriñ Fàllu dafa téye ci ay loxoom ne ko Moustapha mu ne ko Mbakke mu ne ko sëriñ bi moo gore ba ku ko jox boppam mu def na le boppam waaye su du woon ngorog sëñ Tuubaa ku dul doomi sëñ Tuubaa doo am maxamum jàng xasida yi te na ngeen ne képp koo xam ne xasida yi si tee nga ciy jàng dara jay doomi sëriñ tubaa nga yoon ndax sëriñ tubaa moo waxoon ne ku mokkal xasida jasbul xuloo may sa bàyyi sëriñ bi moo waxoon ne ku mokkal jasbul xuloo may sa bàyyi ndaw ji ku mokkal mawaayibu naafi may sa ndey ku mokkal muxaddimatul amda may sa jëm daana wax ne ku mokkal xasida ak fi nii ma warlul ñaar danaa la joxu fas danaa la warlul àjjana sëriñ saaliwu nee na ik fi nii bi ma koy mokkal dalaguma alxuraan ndax waajuram mu jigéen da ko mokkaloon daan ko woyantoo sëriñ bi topp gi mu daan topp ci moom ci lay déggee soxna si yëkkati xasida gi ba sëriñ saaliwu mokkal ko ci dalagul alxuraan kon sëriñ saaliwu bi ko sëñ bi warlul aw fas di ko war loolu dara dalagul alxuraan kon yooyu yépp day wane ne lii sëñ xaadim bëgg a jëm lu am solo la ndax kat euh, xaside yi ay njariñam sëñ xaadim dana ci dox ba sonn waaye mën a si koo lim ndax njariñe yonent bi sallallahu alayhi mooy njariñu xaside yi mbooleem njariñ ñi daje woon ci yonent bi moom la yonent bi yëlëb sëñ tubaa mu def ko ci xasida yi yabuusum ci daayi jumlatan xasaha nabi wajal kitaabi kitaabi ci manaafiha nabi tubaa loolu la wax maanaam na nga def sama xasida sama mbind mi muy njariñ yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam njariñ yi newoon ci yonent bi mooy xasida yi kon nan fonk xasida yi nan jàpp xasida yi nañ warmaal xasida yi te xam ne képp ku sëriñ tubaa dimbale ba ngay jublu penku di jàng xasida yi sëñ Tuubaa wàccoon na ak yow damay faral di wax ne loo bëgg ci nit ci lu baax di ko ko digal mu koo def ba nga dox fekk muy jàng xasida na sa xel dal loola dana ko am looy tere nit ci lu bon mu tëkkoo bàyyi nga dox ba fekk muy jàng xasida na sa xel dal dana ko bàyyi xasida yi dañoo yor daraja yonent wajal kitaabati mislal mursidi la sëñ Tuubaa wax li nga xam ne ab yonent noonu la daan def jamono di defar aw nitam ba teg leen ci ak njub xasida noonu lay def xasida day defar doomu aadama du da ngay ngir jàng xasida da ngay jàng xasida ngir defaru maanaam bu kenn fas ne damay defaru ba jekk soo ko jàng xasida déedéet da dangay fas ne damay jàng xasida ngir defaru ngir bañ a guddal rek baatub xasida ak baatub xasaayid sëriñ bi da cee da cee ci jariñal àddina ak njariñal alaaxira ndax àddina moom mbooleem njariñ yi fi ne benn caabi moo leen di ubbi mooy am amwaalu dunya soo amee xaalis am nga màkk am nga kër am nga woto am nga ceeb booy jëfandikoo ni ko njaay ni bëggee loo bëgg rek xaalis mën naa soppi ko loola jariñ la ko am wàllu duniyaa nag sëriñ bi daa jël mbóotum am wàllu duniyaa def ko ci biir xasida njariñal alaaxira itam mu ngi daje ci laa ilaha illa allah ku la ko ëppale ëppale njariñ yomal xiyaam sëriñ bi jël mbóotum laa ilaha illa def ko ci biir xasida yi soo xoolee xasaa it moo lay jox 174 mooy amwaalu dunya xasida moo lay jox 166 mooy laa ilaha illallah mag ñi dañoo wax ne sooy jàng xasida gannaaw boo jullee fajar jàppal ne xasida ngay jàng ndax am amwaalu dunya moom nga war a wut ci bëccëg gi nga xam ne li ngay jàng da lay tàggatal àdduna njariñ yëpp mën a teew ci gannaaw timis booy jàng booy jàng xasida nag jàppal ne yaa ngi sikkar turu yàlla laa ilaha illallah mi gën a màgg kon ni ko Sëriñ Tuubaa waxe woon ci téeréem ba jaalibatal maraaxib na mu ko tuddee ñu wax ne jaalibatal maraaxib fi aajalin ka aajalin li raaqibi nga xam ne dafa dajale mbooleem njariñi àddina ak mbooleem njariñi àllaaxira tàbbal ko ci biir téere boobu di jaalibatal maraaxib Euh, nga xool xasida gu mel ne tey surul asir nga xam ne alquran al karim bi gën a màgg lu dul moom mbootum quran la sëriñ bi jël tàbbal ko ci biir tey surul asir nga xool xasida gu mel ne sayidina mafatihil bishri wal amn wal janna sangam bu tedd ba sallallahu alayhi wa moo summeeku ci biir mafatihil bishri di moom muy moom Mafaatihul Bichri li muy njëkk def ci am murit bu koy jàng mooy fu mu la fekkoon fu mu la fekkoon ci ay ñaawteef nu mu bari bari du ko jël sànni day jël ñaawteef yépp soppi ko aw yiw fi ne ñaar bu ñu àndee kii di taxal kii di setal ki doon taxal tàmbalee jàng Mafaatihul Bichri daal di tiim ko doon setal ndax lam taxaloon lépp dañ koy def aw yiw boole kook lam lam tàmbalee nga xool xasida gu mel ni nooru daara ni am na benn mbokk taalibe bu daan dox ci xasida yi féete woon xasida gu ñuy wax tuhfatul mutadarain di xasida goo xam ne sëriñ baa ngi ko liggéeyee Mbàkke Bawol bi mu ci noppee ci arafaa ko njëkk a mokkal ci ma maanaam eh, xasida googu ak ak Baay Faal lay junj ndax way toroxlu yi liñ doon sàkku ci suñu borom li leen ko may mooy téere boobu te ab toroxlukat mënta raw ab Baay Faal xasida googu maanaam mooy symboliser ak Baay Faal moo tax Sara Faal féete woo ko Sara Faal wax ne ku bëgg àgg ci yàlla na nga fonk tax Tuhfatul Mutadarrin daan ne ku ko mokkal ñu jëggal la dongay séeréer yi ñëw ne ko ñun danoo feral ijj jéem nañ ba sonn waaye mënuñu ko makkal mu ne ah doom nañ leen bindal tur yi ku makkal tur ñu jëggal la asi yi toxfatul mu tàddanay na Seerafaal da ko daan bind di ko jox séeréer si loola waraloon ca njaareem bu njëkk ñu daan wax Seerafaal ko bind déedéet la ilaha illallah ilaha illallah bakk na la faal daan faal faal mbar ca diiwaan lay bëree dam nga góor faal jitu góor faal faal sanni góor faal mu rawee xar nga baax faal xoti leer faal faal géeji leer yaay seen borom li du neen faal soree dunub faal faal faal ndamul góor faal ngërëm moo yaanu moom kaay yilif faal faal fu la neex noo yaanu moom kaay yilif noo faal Seex Sidul Moxtaar Mbakke fu la neex kaay jëme noo du nu dëpp faal du daay faal faal du nu del to man seen day yoon wi waaye ci xasida yi lañ nekk waaye na ngeen yëg ne xasida ku sëñ Tuubaa bind ci dënnub Cheikh la njëkk a dafa wax ne doom sama dënn bii dafa yoroon dënd bu metti bu ko daan daaneel ndax xam nga li ma ko teg ñu ne ko bëgg dañ koo am faal mu ne xasida yi sëñ tubaa yi su ci sëñ tubaa noppee suñu borom da cay tàmpe darajay téeméeri junni yonent yi ak ñaar fukki junni yonent ak ñeent ma gis mu diis gan ma wàññi ko ci sama dënd ba mu des ñaar fukki yonent ak juróom yi alxuraan tudd des googu muy des ci sama dënn bi nag moo may daane léegi léeg-léeg waaye nee na xasida ak Mawaahibu Naafi bi ci sëriñ bi noppee waa waa malawul axlaa dañ ko doon xëccoo di ko awante yàgg gi mu yàgg ci seen loxo moo tax tàmpe ba wow ca moo tax mënuma koo wàññi jëmm jooju nag di jàng mu Mutadarrin ba suñ borom jële ko fi am benn mbokk taalibe bu gént gis ko ne ko ana noo def ak sa ji mu ne ko lu ma soxla woon fii bi ma ñëwee fekk naa ko sama xol sedd na guy waaye bu ma dellu si woon àdduna mu ne ko ah mu ne ko dinaa jàng nooru daara yi ndax kat am na murid boo xam ne neex a dëkkal nee na ko bu ëllëgee ku dul ku daawul jàng yi da nga ñeeña ko daan jàng soo yéenee jàng nuuru daareen ci jàng goo ko am nga darajey benn yonent ci yonent yi wajal kitaabati ka kulla mursali yaa man waxabtali hujur rusuli loolu sëriñ bee maanaam sëriñ bi moom romb na gaa yi romb na leen te ki yàlla tànn moo ko moo ko yëkkati mu romb leen rafaani ixdaamu xayra mursali la wax yonent bi sallallahu moo yëkkati sëñ tubaa mu kawe mboolem yonent yi xasida yi sëñ tubaa yi ñoo tolloog yonent yi wa jël kitaabat yi kakul la mursali la wax xasida goo jàpp ab yonent la taxawee gaa ñi nan fonk xasida yi koo mën a dégg ak ku mën a doon xasidaa ko gën loo mën a dégg ak lu mën a doon xasidaa ko gën sëriñ tubaa ko bind de moo wax ne sama xasida yi ñoo gën ku mu mën a doon sëriñ bu mu mën a doon ak lu mu jàmbaare jàmbaare xasidaa ko gën lépp luy maye aw yiw nga xam ne bu ko jullit defee am ca tuyaaba xasidaa ko gën waxi sëñ Tuubaa ku jàpp ne ëpp na wax ak sëñ Tuubaa du Aliou Diop nanu xam ne sëriñ bi yaa ma neexi suñu borom la fa yàlla moom fa yàlla xasidaa fa gën a màgg lu dul moom sëriñ bi nee na fa yàlla subhaanahu wa taala sama fa gën a màgg lu jul moom damay wax ne lii ñu doon def léegi julli baax na lool moo gën a màgg ci lislaam waaye gën te màgg ci yoonu murit moo gën a màgg ci lislaam waaye gën te ci yoonu murit ndax kat murit a gën jullit murit moo gën jullit te nun ay murit lañu Serigne waa su fekkoon ne ak njullit doy na du taxawal yoonu murit ndax ci lislaam ju weex tàll la gën a jamono fekk ci ay waajuram waaye daa indi yoonu murit ndax murit a gën jullit ci sëriñ bi mbir mu ne la ca gën lay jël fi mu ne gaa yëpp baax nañu waaye baax foo ko dégg bu doon kilifa gën daal di ko gudd su gën nee salaamaaleykum mu dib sëriñ bee gën gaa yi murit yee gën dongo yi fa yàlla nag xasidaa fa gën wajal madaihi lahu wa salawaat fawqal ibadaati la wax maan wa dahawaat soo nekkee ci xasida ba mu yàgg ak jaamu yàlla jot nga di ko defee yëgal ne da ngaa wàcc nangul rek da ngaa wàcc yow suñu noddee nga teg xasida gi da wàcc yaa ngi ci lu gën a suufe xasida boo noppee ci loolu yëgaatal xasidaa gën lu dul moom sëriñ bi jubluwu ci ñu ñu suufeel julli déedéet jubluwu ci ñu suufeel koor déedéet xasida la yàlla yëkkati waxtaana yëkkati xasida taxut ñu suufee loolu ndax ki bind loolu ab setam def na juróom-ñetti milliards yu topp ci jumaa fii ma nga yokk lu mat juróom-ñetti milliards ci jumaa ji ci Tuubaa kon murid suufeelul julli waaye xasida la yàlla kawel sëriñ bi dafa wax ne alxuraan de moo gën lu dul moom waaye yéen sama taalib yi xasidaay gën ci yéen li gën nag ak li gën ci yow bokkut alxuraan moom baax na lool waaye ci ko mel ne sëñ ci la baax ndax yonent bi nee na bari na kuy jàng alxuraan fekk mi ngi lay rëbb sëriñ bi maam Cheikh dafa mos laaj mag ñi ne laa yama suna ilal mu taxaroon ni ngeen koy firee ñu ne ko ah xanaa bu laal téere bi setoo mu ne leen luy set ñu ne ko xanaa dem jàpp mu ne ah fa tër ba yàllay wax nekk ab loxo yëggu fa yàlla tër ba muy wax fa mu ne ab loxo yëggu fa foofa sëriñ bu mat sëriñ moo fa mën a dugal ab loxoom didi ko te kooku Sëriñ Tuubaa rek la kon ku bëgg loola dañ ci yow nga mën a jariñ ci alxuraan jaaral ci xasida yi xasida yi mooy bunt bi la mën a jox alxuraan nga mën koo jariñoo fi mu ne loolu mu rek ko dégg ndax bu ñuy jàng alxuraan dañuy wax ne dañuy wàcc kaamil lépp loo dégg ñu ne dañ koy wàcce ku newul ci kaw bokkoo ci lu ñuy wàcce ku newul ci kaw bokkoo ci alxuraan ña ne ci kaw ko moom suñuy jàng xasida ñoo wax ne dañ koy yëkkati dañuy yëkkati xasida gaa yi ne ci suuf bu ñu bëggee jóg jàpp leen ci xasida yi ku bëgg a jóg jàppal ci xasida yi waaye ku fi nekk di xugul ak daal xuraan boo mënta yëg doo ci jariñu te yëg gi mooy sell ba fa dayeb sell soo ko mën a jariñ ci alxuraan ca lay tax nga sell moom xasida yee ko mën def ci yow su ko defee bëgg ñoo gën a guddal waaye ku dox doxe ni nga man man xasida laa yëg ndax xasida ma yéegee lu dul xasida yëguma ko mënuma waxtaan ci lu dul moom waaye li ma xam mooy lépp lu ngeen dégg ci xasida yi ak loolu lu mu mën a doon dafa mel ni ku fekk géej nga sëpp ci puso yëkkati lay tooy ci puso ba rek ngeen di dégg waaye la des ci géej gi bu ne su ko wax fa sëñ Tuubaa jële xaside yi fa boromam fekk fa lu ko gën ndax sëriñ bi day ku am jom bëggul ay taalibeem jëggaani dara loolu danaa ci jàllale léegi rek am na bokk taalib bu ma ko wax ndax bi ñuy julli timis am na koo xam ne doon na wax amiin ca kaw loolu du ak murit yooyu yu bees yu ñu fi indi buñ ñu ko indilee nun buñ ko jël danoo am ndigal ci yem ci Malick aleykumo bi Malick li sëñ Tuubaa wax am murit day fexe ba gëstu ngir imaam Malick teg ca tànkam ci bañ ko wàcc ce imaam Malick li mu wax mooy amin lu ñu sopp la waaye wax ko ci suuf lu ñu sopp la ñaar yu ñu sopp la boo ca bàyyi wàcc ko dara amin des koy wax waaye yow mi koy wax ku dendu léegi waru koo dégg ña koy wax ci kaw nag ñoo xam fu ñu ko demee waaye nun ay murit la nan yam ci lu ñu sëñ Tuubaa jàngal gis nga lu ñu def ci lislaam nañu xool lu ko sëñ tubaa doon defee ñu defee ko noonu ndax kat maa ngi leen di yëgal ne ku jooy ak sëñ tubaa la nga doon ragal ba tax ngay jaamu yàlla da nga tase ak moom sëñ tubaa ko wax de sëñ tubaa nee na wa man yamin li gayri ma naanu namin wala ñu tub fa saaka li naari yamin ku jàng jëm ci lu ma jàngul jëm man ahmadul xadim yaa nga jàng jëm safara ci yógoo ko sëñ tubaa wóor nañ fexee dëppoog sëñ Tuubaa lu am murit di def na ko xool nu ko sëñ Tuubaa di defee gis nga xoraan sax buñ koy jàng nañ ko jàng njàngunu murit sëñ Ablaat nee na ay naar jarta góorgóorloo ndax loo ko dégg-dégg boo tàbbee ci seen biir projet rek lañ lay xoolee ay tubaab jarta góorgóorloo loo ko dégg-dégg boo tàbbee ci biir tubaab yi ab groupement lañ lay xoolee bu ko doon groupement wala boo ko doon projet nag jarta bàyyi li nga doon nan doon ay murit tey dox doxinu murit di wax waxi murit suñuy jàng alxuraan nañ jàng alxuraan yi murit suñuy julli nañ julli julli murit bu ñuy nodd nañuy nodd nodd murit sëriñ bi daa am léppam gis nga bu ñuy gàmm ku yaakaar sëñ Tuubaa doo jëggaani loo gàmm jës bu mawaay bu muxaddimaat miimiya raaya na cee gàmm sëriñ bi rekk matal sëriñ Tuubaa réeroowul ak sangam ba sallallahu alayhi wa eh? xasida yi nag sëriñ Moustapha bu sëriñ Saliou daf ma ne at mu de at mu jot danaa la wax benn kàddu boo xam ne soo ko settantalee man ciy jariñu ba déwén ren jii li ma wax daf ma ne Alioune ma ne ko Mbàkke mu ne ma gàmmu yi ak màggal yi ak wàccam kaamil yi ñëpp sëñ Tuubaa la ñuy dàkk ma ne ko waaw mu ne ma yéen ji nekk ci xaside yi da ngeen a daj sëñ Tuubaa sëñ Moustapha Saliou nee na ñépp sëñ tubaa la ñuy dàkk waaye nee na ñu ne ci xasida yi dañoo daj sëñ tubaa ca mag ma daana wax ku dajul daam dajul kon ku daj sëñ tubaa téel ba mu dëgër te sëñ tubaa mooy xasida yi xasida yi ñooy sëñ tubaa su ko defee ñu xam ne xasida googu ma doon wax di ak toffatul mu tàddi ray na na ko murid di fonk ndax kuy wut te loo am du yàqu du sànku lee nga bari lee te tu ku taxaw moom doo yàqu lee maam Thierno Ibra Faty maam Thierno Ibra Faty daana ci soññe lu bari daana wax ne sàllaaw ñeent fukki wàlli yu tooñ seen borom bañ nangu seen seen wilaayatu suñu jàppante woon benn par benn nga dem ba ca ka mujj nga téye ci loxoom soo jàngee benn tuufatu ñu delloowaat leen lañu lañ yàq lañ ñàkkoon Serigne Ndiaga Diop su ma wëlëree lool yàlla na sëñ Tuubaa dolli ko tawfeex nee na dafa am yi Baye Fall yu ko wax ne ku mokkal tofatu doon wàll yi mu dem laaj ko Serigne Cheikh Fall Baye góor mu ne ko ah man de dégguma loolu waaye xam naa ne wàll yu mokk yaakaar sëñ Tuubaa yëpp mokkal nañu tofatu mutadran wàll yu yaakaar sëñ Tuubaa yëpp mokkal nañu tofatu mutadran xasida la koo xam ne xasida gu baax ci ab murit la dafa bokk dafa bari lu mu bokkale jaalibatal maraqib xam nga suñ borom day maye lu ko soob jullit yépp Seydina Ababakar Sadiq moo ci gën waaye Seydina Omar am na ci yàlla lu Ababakar amul ndax aba Seydina ci seytaane di ko daw Omar nag seytaane day musli ci moom di ko daw moom Omar su duggee mbedd seytaane day dëpp mba xamu moomee Omar yoroon sëñ Tuubaa da ko ko ci jaalibatul maraaxib ak ak tuhfatul mutadarain kuy jàng jaalibatu seytaane da lay daw da lay daw asindi di juróom fukki nee na benn ab yaat bu nekk jaamu yàlla ak at la soo jàngee benn si di am nga jaam jaamu yàlla juróom fukki at yu yàlla nangu benn sindi di juróom fukki at. mat la bu shifaa yi sëriñ Mor Bay Cissé moom wax ne ma Alioune ma ne ko Cissé mu ne ko xëy jàng matlabu shifaa yi am nga tuyaaba ah murid waa kay mat Alioune ma ne ko mu ne ku xëy jàng matlabu shifaa yi ah, am nga tuyaabay xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëpp nga fekk leen ci jamono ñàkk ku ne nga jox ko junni boo gontee jàng ko amaan nga tuyaaba ji toll noonu ne ma sëriñ bi da caa wax. nañ cay jariñoo waaye ñu bari lañ ko desee dégg wa dum alay fi macha i wax sawala sëñ Tuubaa wax bari aana kuy jàng matale bu shifaa yi te foo ko fekk muy soño ko si mburu aka naan doom naan dañ may tere suukar li ko waral mooy daa jaarul fa ko sëñ bi sant ca kat ndigal daa bokk ci charte yi tax ñu nangu li ngay jëf sëñ daam Abdourahman loo daa ñëw ci sëriñ bi ne ko damay tiit bu guddee sëriñ bi ne ko booy tëdd na nga def ñaar fukki bis naa maanaam ak benn mu ne ko bis bu ne ma def ko waaye du tee ma tiit sëriñ bi ne ko booba dama la koo digalut waaye la ko demal def ko ci suba ko sëñ ndaam dafa biddanti julli siwul sëriñ bi laaj ko ana lu wax julli siwoo ne ko fan yi dama maa ngi ciy nelaw biig damaa nelawu biddanti ne ko ah lu ko waral mu ne ko man daal bi ma defee ñaar fukki ak benn ak ak benn yëguma dara ba bët set sëñ bi ne ko ba nga ko daan def dama la ko digalul woon kon ndigalal sëñ Tuubaa bokkul ak lu dul ndigalal sëñ Tuubaa sëriñ Tuubaa nag dafa wax ne matlabu shifa yi njariñ li mi ngi ci ku koy tàmbali ak nga koy tàmbali bi ngay tàmbali matlabu shifa yi fas ku mu dox sa diggante ak jàngoro ngoon nga koy tàmbali bu nga jàng ko bu ngoonee nga jàng ko nga jàng ko waaye de su ko def suba ngoon ngoon ak suba lay ko defee yooyu mën nañ cee dox mu sori lool ndax xasida yi faw ñu xam ne njariñ ñi ne ci xasida yi njariñ ñi xasida yi ëmb newul ci biir abyaat yi déedéet newul ci biir newul ci biir abyaat yi da koo tiim sëñ bi ànd ak moom maa ngi leen di nett li benn xisa boo xam ne yàgg naa ko wax damaa dem ci jumaay Tuubaa di siyaar sëriñ bu mag bi fekk fu sëñ Njóogu Mbàkke ma teg téere bi ma yoroon xaw naa toll nii ci suuf sëñ Njóogu ne ma ndongo la xanaa loolu alxuraan la ma a ko déedéet xasaayit la mu ne ma teggil ma jël ko teg ko sama ko moom sëñ Njóogu jël ko di ko xool cére ba rafet lool ay roxoñam di tuuru keroog dafa ma ubbil barabu sëñ Tuubaa sëñ Njoogu bi fi sëriñ bi jógee moom la sëñ Fàllu jëloon moo doon wattu barabu sëñ Tuubaa bi li fi sëñ Ablaay di nekk lépp ak njabootam ñoo ko ñoo ko fa wutu woon mu ne ma lii de ba ko sëñ Tuubaa di wax xam naa ne boobu juddoo ko toog naa ci jataayu sëñ Tuubaa mu wax ne sama xaside yi day diir bu gàtt dana tasaaroo ci réew mi yomb ba mel ni journalum nasaraan bi ba lu waaye am am ko waaye bu boobaa li ci jariña dootuma ko bàyyi ci kayit yi sama loxol bopp laa koy téye képp ku am ca kayit yooyee ca fonk ko na ko war a fonke teg ko fara fa nga ko war a teg may tolloog yow di la defal njariñ la nga di ci jariñu di ci jariñee koo xam ne nag yomb gi rek a tax nga am ko mu bàyyi laa ak moom mu mel ni ci yow journalu nasaraan bi kon njariñu xasida yi newul ci biir ab yaat yi ku ko ciy seet da nga juum ndax fi mu de yenn ti xasida ngay gis sëriñ ba wax ci ay njariñam te da koy junj waaye am na ci yoo xam ne du ko wax du ko wax ndax ku ne xam na ne xasida ak jaawartu bokk na ci ay mayam ku ca mokkal benn bayit deesu la laaj dara ci bàmmeel ce loola newul ci biir téere bi sëriñ bi ko ci waaye mbóot la mu ànd ak téere bi su ko defee ñu xam ne xasida yi maanaam mooy suñu magasin mooy suñu trésor mooy suñu rasul mal lu ñuy wut ci yàlla te bëgg caa gaaw a jot nañ jaar ci xasida yi ab murit ab lonkam bi koy ñoddi lépp lu mu bëgg mooy xasida defaasam bi koy jañi lépp lu mu ragal mooy xasida daf i wa jal bi xidmatul aadil amin la sëñ Tuubaa wax ci xidma sëñ Tuubaa ci yonent bi doon ay tool doon marchandise mu muy jaay weesul woon diggante tagg ak julli kon nag nanu gën a fonk xaside yi te bokk teew la waxtaan wi nga xam ne sëñ Xaadim moom la war a waxtaane ci diggante njariñ yi nekk ci xaside yi ak nan la murit di def ba jariñoo xaside yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bismillahi arrahmani irrahim wa sallallahu ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ci bis bi di leen siyaar ci bis bi di leen baalu àq di leen baal di ñaan suñu borom mi nga xam ni mooy borom jéggal te képp ku mu jéggal nga ma jéggal ñu ñaan ko mu jéggal suñu bakkaar yépp nuyoo boobu nag ak siyaar bi ñu ngi ci jiital kilifa yu tedd yi nga xam ni ñoo teew ci barab bi te jiital ci njabootu Serigne Touba ñi xam ne ñoo fi teew di nuyu bu baax sëriñ góor a sekk nga xam ne mooy kilifa barab bi waaye nag di nuyu mbokk yi nga xam ni muy kanzul muhtadin ñoo taxawal bis bu tedd bi te mu yàgg lool te Pastef lal ko ndax bariwaa na ay conférence yu may dem ci bisu xasida dama leen fay tudd di leen wax ni eh, lu waay am ci bisu xasida rek ñoom dañ ci am tuyaaba ndax mbir boo ko jëkkee sos mu rafet lool ñu la ci roy ba ko doon àddina tukki rek noonu lay demee te ñoom it ñu nekk ay nit ñoo xam ni tàngam la wunu kenn képp ku leen woo sa bis soo boo gestoo di nga leen gis kon ñu ngi leen di siyaar bu baax baax dala ko ci jëwriñ ji sëriñ yërim ñoom sëñ àll yi mi doon waxtaan waxtaan wu am solo wi daanaka buñ ci yemoon sax dana doy sëriñ koso ak ñi ne àndal liggéey bi yépp xam naa des su mën a lim ñëpp waaye buñ ci limee ñenn it rek yóbbaale na ñenn ña di nuyu mbokk yi nga xam ni ñoo fi teew yépp ci kàddu ak ci xol waaye di nuyu baax sëñ Ibrahima Gueye mi nga xam ne moom lañ àndal ñëw ci bis bu tedd bii xam naa bu nu bëggee waxtaanee njariñu xasida moom dootuñu ci xuusati ndax defe naa lii nga xam ne moom la sëriñ àll yi wax doy na sëkk ci ñu mën koo jariñoo te tax ñu mën a fonk xasida baax a baax ndax sëriñ Touba dafa wax ni eh, jihaadin qada wa rabbi qabila wa huwa ka sa'yi kulli haadin arsala ne li ma doon def jeex na yàlla nangu na lépp sama jënd jëf ci nekk nag wecc na jëfi yonent te ku ne xam na ne xas da moom ci jëf Sëriñ Tuubaa la bokk te ne sama jënd jëf ju ci nekk wecc na jëfi yonent mu nekk it koo xam ni comme xasdaay gi nga xam ne moom lañ jàpp ni moom la wujjee bind 1927 la ko bind waaye 1927 defe naa ak léegi at yu yàgg la koo xam ni nag xasida gi mujjee bind ak kii ñu wax ni dafa danoo bëgg mu waxtaane njariñul xasida ci xasida yooyee sëriñ bi doon bind diggante de ga mujjee bind ak bi mu juddoo toll na ci fanweer ak juróom-ñaar defe naa kon wax ci moom dootul yombati waaye sëriñ bi li mu wax ni lil baxri xad wa dax xad wa jahtu indal baxri mat xam bi xat sirtu misal baxri loolu moo ci nekk comme sëriñ bi moom nee na géej la géej moom ñàkk a nekk mool du nga xam ci dara ndax boo mus sa géej wala ba napp woo ca da nga nekk ca àll ba ñu togg aw jën cib ceeb nga lekk ko kon ñàkk eh, nekk mool du tee nga xam li nekk ci géej Sëriñ Tuubaa moom noonu la mel du ko ku nuy xam waaye du ku nuy umpale it nag ndax landi na landi xam ni defe naa du ku waaye bu ñu tuuti rek benn rek laa ciy wax ñëw nag ci ni nuy jariñoo ci xasida ndax comme njariñ li moom xam ngi baax na naam waaye fexe ba jariñoo ko da ciy gën ndax ku ne xam na ni docteur soo wéradee dem ci moom bu la bindalee ordonnance soo ko bindee du caaginte ne bind jël naa ordonnance rek mooy mooy tax nga wér kon da koy jëfandikoo kon maanaam ne ci jariñoo rek moo cëpp doole waaye njariñ li loolu Sëriñ Tuubaa waxoon ñetti ñii ma lay wax ci njaareem rek doy na njariñul xasida muy sëriñ Amadou Moustapha Mbacke bu baax ba ak sëriñ Massamba Mbacke ak sëriñ Modou Massamba jóob Sam waxuma sëñ Massamba Diop Sam de sëriñ Modou Massamba Diop Sam mooy taal sëñ Massamba Diop Sam ñoom ñett danoo ñëw sëriñ bi bi nu ñëwee sëriñ Touba ni leen damaa bëgg su ngeen delloo seen i kër ndax ñoom ñett ko ne amoon dafa kër njaareel ngeen xasaa xasaayit seen xasaayit ya ngeen moomal seeni bopp ngeen indil ma ko te ngeen bàyyi fa ya ngeen moomut ndax yàlla maandu la bëgg moo tax ñaare xas da goo moomul nanga ca maandu na nag xas da goo moomul bu ko jàng waaye boo jëlee xasida jàmbur àbb ko soo ko jàngee ba noppi nanga ko delloo ndax maanaam saa yoo ko yóbboo rek yóbbu nga loo moomul te sàcc bi ci ëpp bakkaar mooy lu gën a lu yàlla gën a fonk sàccub kaamil moo ëpp moo ëpp bakkaar sàcc ay milliards ndax lay njëriñ cib kaamil du ay njëriñ ci suñu borom moo tax Sëriñ tubaa wax na leen na ngeen indi xasaayid ya ngeen moom te bàyyi fa ya ngeen moomul ndax yàlla maandu la bëgg waaye Sëriñ Tuubaa lu mu la wax rek dana ko jëfe ñoom ba nu delloo seen i sëriñ tubaa dafa wut ñetti basangi romb jàpp benn bu ne mu teg ci barab ku ñëw rek mu joxoon la genn basan nga teg nga jóor fa say xasida ndax bëggul xasaay di jaxasoo ba nu toogee nag kenn ku ne indi xasidaam teg ci genn basan ci basan yooyee sëriñ Touba ni leen na xasida yii laa bëgg waxtaan ak yéen ni leen xasida yi nga xam ne yéen a ko moomal seen bopp maanaam xasida yi nga xam yéen a koy xëy di ko jàngal seen bopp waaye ngeen moom ka ak yi ngeen xam yéen a moom te seen ak jot àggul te di ko jàng ndax loolu day tekki rek kon xamoon na lii dana am ndax maanaam nit taalib bu mën a doon li mu yor ci xasaayit du ko mën a jàng moo tax mu ni xasida yi nga xam ni am ngeen jot di ko jàng ak yi nga xam ni seen ak jot mayu leen ko ngeen te eh, ngeen koy jàng waaye nag wormaal ngeen ko wormaal gi nag mooy teg ko ci barab di ko fonk di ko fëgg di ci def eh, parfum di ko fonk fonk fonk rek ndax xasida yooyu ak yi ngeen di jàng ñooy am at ci yéen Sëriñ Tuubaa ni képp koo xam ne faatu na ci yéen bu lay gas ba bu nuy gas bàmmeel ba ba noppi xasaayid yi nga doon jàng ak yi nga jàngul yëpp te fonkoon ko warmaaloon ko ñu nga ca bàmmeel ba di la nekk saa yi la robee ba ban la ginnaaw ay jëmm la doon ak yow nekk ak yow ci bàmmeel ba Sëriñ Tuubaa wax de daal di ni lépp loo xeme moon ci lu lu neex ñoom ñoo lay wéttali ci bàmmeel ba di la ko indil ak loo xam sa xel dajul loola saa yoo dekkee ëllëg ñoom ñooy jiitu nga topp seen ginnaaw foo ñaar daa jaar ak ñoo la ciy musal soo àggee sa kanamu borom it doo lay ñoom ñoo lay layal ngeen tàbbi aj àjjana loolu loolu rek doy ni kon kon xataay bi moom moom du ànd nit ki nii rek ci àdduna ñu koy jàng rek li sëñ yuy eh, wax kon baatin ba dëgg-dëgg ndax lépp lu ñuy jariñoo rek ci sunu borom baatin ba ci kaw la nekk waaye du ci suuf loolu leer na ba ci Touba gii nga xam ne ñu ngi koy siyaare ji Makkatal Mukarrama baytul muqaddas ñoo yem bayt Kaaba ga baytul Mahmoud moo ko tiim siyaar bi ka malaaka yi siyaar takk leeru baytul mahmur mooy kaaba ji loolu moo tax baat ñu koy siyaar waaye baatin ba nag du foofu ndax baytul mahmur moo tiim kaaba ga naka noonu it baytul si sidratul muntaha ga sëy naa jibril di toog di jox ndigal malaaka yi moo ko tiim sidratul muntaha boobu malaaka yi dikk ci jibril di laaj ndigal leer ga cay falngat mooy le mooy takk ndeeru baytul muqaddas boobu moo tax boo koy siyaar rek na nga xam ni sidratul muntaha moo la tiim naka noonu sajaru tuubaa yi nga xam ni suñu borom moo ko jëmbat ci àjjana moo tiim barabu sëñ Touba bi kon boo ñëwee ci barabu sëñ Touba bi rek na nga xam ni sajaru Touba moo la tiim loolu lu leer a leer la kon nag kon te defe naa loolu mooy wax sëñam si jaxate waxoon na ci misaal mu leer sëñ Modou Xeyri jaxate mel ni danoo dafa ñëw ndànd ca ñu ànd mun ma seera faal am na fii kër nan fa dem ñu dem ci kër seera faal ga jógewaat fa ñëwaat ci kër gi ci daara ji ñu toog di waxtaan waxtaan ba mu yàgg mun ma dafa am bis ma ànd ak sëñ Amsatu Jaxate ñu ñëw di siyaar barab sëñ tubaab bi ñu ngi ko duggee ci buntu penk bi bi ñu duggee ba toog nee na fi ñu toog rek sëñ Amsatu daa ma ni moo du xëy ne man ka jaxate mun ma gisoo càll la gu rus jóge aras ba ci barabu sëñ Tuubaa bi nee man ko gisuma ko dem mun ma tàllal sa loxo nee na ma tàllal sama loxo mun ma yaa ngi teg yaa ngi ko teg càll gu gi da koo gis gisul waaye yaa ngi ko yëg sa xol loolu sëñ Amsatu moo ko wax kon leer na kon barab lu nuy jariñoo ci suuf lu ne rek ci yàlla baatin ba ci kaw la nekk naka noonu alxuraan it noonu la mel ndax xam ngeen ne alxuraan baatin ba dëgg-dëgg boo jàngee mooy bu xudduus ni ko sëñ Tuubaa leerale leer na xasayit it noonu la mel xasidi ku nekk jëmm lay doon defe naa eh, ay këyit ak daa loolu mënut a nekk jëmm nii rek kon kon lay tax lay nekk dëmm jëmm du lii mu ngi mel ni kon jumaa jumaay Tuubaa jii ñuy wax nga xam dañ ni maanaam mooy jumaa joo xam du daanu déedéet du lii de du du ji yi jumaay ji yi nga xam ne moom lañ jëfee bët jumaay ja Sëriñ Tuubaa di wax lu day ni bopp sangaleeñ maanaam li gën a rafet ci jumaay jii boo ko doon xool tey nga dem loolu jumaay jooju Sëriñ Touba di wax ni kenn du yomal xam dañ koy samp ñëpp xam ne lii mooy jumaayu Touba du tabax bii ndax lii ciment la ay maçon ko tabax te wa kullu man alayha fanin kon da cay bokk waaye jumaay jooju muy wax lu ne ni bopp sangaleeñ bu ko xaroon juróom-ñaari xar-xar wenn xarit wa soo ko xooloon bu la ko suñu borom wanoon nga gis ko soo bañ ko waat la gën a rafet jumaa yi Touba ji ñu jàkkaaroo da ngay wàcc ndax ñaaw ci yow kon jumaa ji taxul ñuy wax jumaay jooju tax ñu wax moo tax mu ne woon ci ñetti was Moustapha Fallilu Basiru mu ne ñetti was yooyu téye jumaay ji suuf benn bu ci nekk moo gën a rafet jigéen ñi xorul ay ni yomal xiyaam sëñ Tuubaa ko wax kon nag kon lu ñuy jariñoo ci kaw suuf rek bu leen jàpp ni lii la kon ci kaw la nekk loolu leer na naka noonu it noonu la sëñ Tuubaa mel comme bu fekkente ni sëriñ bi nee na jëpp jëf ju ma jëf ju mën a doon nee na taxaw na taxawaayu jëf yonant loolu la wax jihaadi al qada wa rabbi qabila wa huwa ka sa'yi kulli haadin arsala li ma doon def jeex na yàlla nangu na lépp sama jëmmi jëf ju ci nekk na wecc na jëf yi malayka jëf yi yonent loolu ci xasida yi am na ja e, jàmbaare sëriñ Touba ju mag ja muy Serigne Omar Diouf jàngkat bu mag ba nga xam ni saa yu yëkkatee rek soo tax soo toogee dangay nga yëg Serigne Touba ndax la muy jàng ca xol ba la ko ci biir Serigne tax bi mu fi waa a jógee am na genn benn nettali bu mu nettali woon sëriñ dem ba Ndour defe naa ko xam ñi ta kuréelu ñaar rakkee géej gi xam nga ko sëñ Demba sama xarit la moom ko nettali ci lamañu boppam mu ni sëñ Omar da ko woo ni ko dama say sa kër laay reere si nee na ba mu ñëwee nee na ñuy toog di waxtaan ba mu yàgg sëñ Omar ni ko man day fan yii damaa gént génn gént gu ma jaaxal gu doy waar mu ni kaa ah, mun ko damaa gént yomal xaam léegi ñu ni ay avion ñooy ñëw di yóbbu nit ñi àjjana waaye avion yi nag mooy xasaayit sëñ Tuubaa yi nga xam ne avion bu ñëw bu taxawee mbooloo dugg ci ñu ni xa bi avion bi mooy xasida sàngam su ko defee ñay dugg ci biir ñoo doon jàng ñoo su jàng xasida ga ne suñ jàngee suñ duggee ba avion fees mu nee na avion bi du naaw def nii day teen jublu asamaan ne su jubloo asamaan naaw dem ñu ni ñoom yóbbu nañ àjjana suñu amar nee na avion yu ñëw ba mu yàgg nee na ma ni ma waa man ban avion dugg ñun ko yow jës moo la yóbbu waaye nee na gis moom xaw ma lan la waaye ponk la avion la moom nee na ba mu taxawee nga ndam avion la boo xam ne ñun ko nag yow avion bi moo la yóbbu àjjana suñoo ma nee ma dugg ci mu départ man jëm àjjana gént googu ci weer woowu la faatu kon loolu leer na kon li muy tekki mooy kon xasaay Sëriñ Tuubaa yi du nii rek de du nii rek de waaye nag neef di def ba jariñu ci sëriñ bi ci biir xasida yi da ciy joxe ay message yu doy waar te defe naa gëstukat yi xam na ni lii ma wax am na xasida gu sëriñ àll yu tudd léegi muy mafatihul bishri xam ngeen ni terroriste bii nga xam ni moo jaaxal àdduna bépp sëriñ tubaa wax na ko ci biir xasida googu terroriste ci boppam sëriñ tubaa wax na ko ci biir mafatihul bishri te it lam ca moo gën a yéeme moo tax ñun suñuy xel ñun taalibi Sëriñ Tuubaa yi war naa dal bu baax a baax sëriñ bi dafa wax ca biir xas dëgg ni salli wa sallim sarmadan alal amin sayidina muhammadin man laa yemin wa ali wa sahbi wa hëb wa hëb lana fawzan bi yahbitu ni man qabliya lu mu ca teg fii ka wa fiihi innaka alwahaabu yaaman bihi lam yanxa irhaabu irhaab mooy terroriste irhab mooy terroriste irhab mooy terroriste ko rek bàyyi ko bàyyi ko bàyyi ko rek bàyyi ko rek waaw ñu teewlu wax loolu sëriñ bi nee naa la day joxe ay message yoo xam ni su ko bindee ci xasaayit gi dañuy dem ba jamono loola am ñu naan lii fu mu nekkoon fekk Sëñ Tuubaa wax na ko bu yàgg irhab bañ na ko ba araab yi sax baat terroriste irhab lañ koy wax baat baat bi ci boppam la indi jëfandikoo ko ci biir xasida gi bi muy wax ni yàlla na nga doole yonent bi teraanga moom mi nga xam lu mu wax dëgg la naa Seydina man laa yemin man laa yemin li muy tekki mooy yonent bi lu mu wax dëgg la wa ali wa sahbihi ñooñ yooyu ak sahabaam yooyu teraanga jooju nga defal yonent bi nga defal leen ko waaye lam ci teg naa wahab lanaa fawzan bihi naa man xab man xabliya yàlla nag nu defal te li ñuy wax maanaam texe goo xam ni ku dul ñenu jiitu woon ñëpp dañ nuy ñee ci texe googu loolu defe naa moom jëru ci sori ndax koo xam ni bind nga loo xam ni ku ko jàng texe ku ko fonk texe ku ko def nangam texe kon ña jiitu woon amul loolu waaye lam ko teg fii ka wa fiihi dafa dàmbee yàlla ak yonent bi ñuy def ñi nga xam ne ñu ngi ràngoo seen i bomb di fekk mbooloo ñuy ñu ñuy taal bomb ya di reyaaye ñooña ña koy def dañoo tuddoo yàlla dañ ni ay jullit lañu yoo xam lislaam la ñuy xeexal moo tax Sëñ Tuubaa indi baatu fii kat yow yàlla wa fii ak ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis nga kon yàlla ak yonent bi la indi ñay def loolu lépp nee nañu yàlla lislaam la ñuy xeexal kon ñoom nee na yàlla leen tax a jóg waaye dañoo xamut ndax rey nan koo xam ne wëlluy la ci biir mbooloo ma te xamuñu ko sëñ bi nag teg ca ni innaka al wahhab waaye lam ci teg eh, mooy yaaman bihi lam yanxu nii irhaabu sëriñ Tuubaa ne yéen samay taalibe seenam xel dal ci yéen lu jamono yëngu-yëngu te rus lu mu bari bari na ngeen dal du ma jublu mukk te du am ci man lool leer na baat bi bi ko sëñ Tuubaa di bind kenn xamul woon ni jamono dina ñëw nit yor ay bomb di ñëw fekk mbooloo di taal bomb yooyu di rey mbooloo ma Serigne Touba ne yéen waa Sénégal na seen xel dal defe naa jamono ji ñu toll état bi nii muy jàppe ay nit di leen tuumaal ci terroriste na dañ cee laal bu nu jàngoon lii dañuy jàpp seen njàmbur xam ni Sëñ Tuubaa aar na Sénégal ndax ba muy wax lii booba xamuñu lii dana amam déet kon Sëñ Tuubaa ci biir xasida day dalal sunum xel loolu leer na ba muy wax soo demee ci xasida googu ñuy wax matlabul fawzayni xam ngeen ni bokk na xasaayit gi mu njëkk bind tuubaa bokk na ca loolu lii nu gis nii tey nga xam ni ay nit ñooy jóg ni lislaam lañuy woote di ber ay yoon maanaam di wedd ñi fi nekkoon naa nangam bi daala nangam nangam defe naa barki démboo njaay rek lan dégg fii koo xam ni dañ ni imaam la am na xam-xam mu dal ci kaw yoonu murit dal ci taalibi sëñ tubaa rawatina waa kër jàmbaari sëñ tubaa ja nga xam ni fu sëñ tubaa gestoo gis ka muy say rafaal xam ngeen ni loola ba nuy wax loola ba nuy wax ci jàpp ni murit yi li li ñu gëm na du dara teg ci àgg ba tudd baatub yéefar di tudd yoonu murit maa ngay tudd ku takk sëñ tubaa léegi ñoom loolu lépp suñ tubaa xamoon ne ni yooyu dana am ñu dem ba nga xam ni am ñoo xam ni dañ ni bokkoon nañ ci sëñ bi wala seeni maam nangam sëñ bi ñu dem ñu ne ànd ak ñoom ñu dem ànd ak ñooñee di weddi sëñ tubaa sëñ tubaa ni taalibe yi ne seenam xel dal ba ma koy bind ca mat lawu faw sëy ni booba ñoom ñooy seen maam judduwut wa najjinaa bi jaahi min da'wa wal tag fi an naa ban wa lëhwa te gis nga baat yi muy jëfandikoo yu doy doy waar la sëriñ bi nee na yàlla musal nu ci daraje yonent bi salaa salaam ay sos yii ñuy sos di ko teg te du dëgg musal nu ci kon nag loola mënut a yàq yoonu murit booy taxaw di ñi sëriñ bi mbaa ngay ŋàññi taalibe Sëriñ Tuubaa yàq gàtt xam-xam waaye soo amoon xam-xam da di maandu ndax ñu lëpp doole fuuf ëpp la kartan gënoon laa jeg ko àdduna ñoo song sëñ tubaa te doonoo mujj na sax kon lam ca teg mooy wal fi an naa ban yàlla fegal na ay ay fen moo tax ñiy làqutoo sëñ tubaa defe ne ñoo ca nekk billaahi bis dina ñëw ñu yendoo seen ab jant boo xam ne kenn du leen ca fekk wax naa keroog nee naa leen kii làqutoo suñ tubaa ni mu mel dafa mel nit ku toog daan ne dama jox ma baraada baraada ba mu indi baraada ba mu def ci ndox ñu lug teg ci kaw taal bi dem ba mu bax mu jël suukar def ci yëngal ba mu seey mu xel kaasu ndox boobee am suukar di naan tanaa gaa yi sama attaaya jee neex xam ne nax na boppam de amul attaaya ndoxum kese la nekk nekk ba nekk ga ba ndox ma nekk ca baraada ba ak suukar ga mu suukar baraada ba bu bu sukkandikoo ba jàpp ne am na attaay nax na boppam kiy làqatu Sëñ Tuubaa noonu la mel ndoxam kese lay naan Sëñ Tuubaa kenn mënu koo nax moo tax ñiy wut ay duur ay lay di ko làqatu Sëñ Tuubaa danoo xamul Sëñ Tuubaa nee na yàlla fegal na ma loola waaye lam ci teg mooy wa lëx waa dama leen ay message yi muy jàllale ku doon settantal xasaay bi di nga xam kan mooy Sëñ Tuubaa mu ni xam ngeen ni ñun ñëpp seere nañu kuy fo ku nekk yaa ngi làqatu sëñ Touba lu leer amul li may wax ñëpp ko dund ñay football ñu ngi làqatu sëñ Touba ñay bëri ñu ngi làqatu sëñ Touba ñay musique ngi làqatu sëñ Touba sëñ Touba nee na ñooñu du man du ñoom wala waa ñooñu sëñ Touba nee na yàlla fegal na ma leen bu yàgg léegi kon lii léppam ba mu bind moom xamoon na lii dana am kon ku sëñ Touba soxla ku sëñ bi soxla mooy kii wala xaasilu suufiyu aalimun amil bi almi xaqiqatan wala bi yemin ab taaliba dëgg-dëgg sëñ Tuubaa nee day xam waxuma la nag jàng rek de jàng taxut a xam waaye jàng na ba banaan kayit ñi weddi sëñ Tuubaa ñëpp ci njàng lañ sukkandiku kon waxuma la njàng xam la wax waxuma la njàng parce que ñi weddi sëñ Tuubaa ñëpp ci njàng lañ sukkandiku ba weddi sëñ Tuubaa kon waxuma jàng xam la wax am murit dëgg-dëgg sëñ Tuubaa day xam loolu nag li ma la ciy firndeel mooy lii ma lay bëgg a wax sëriñ Ndiass Cissé waajur sëñ Mor Mbaye Cissé mag ñi dañoo toog ci pencum njaareem benn weddikat ñëw fekk leen ñu toog mu nuyu leen ni leen waaw yéen da ngeen ni jëmm ji ci biir kër gi ngeen toog te da ngeen ni mu leen tàbbal àjjana yéen yàlla nekk fi yonent bi nekk fi ngeen di gëm nit pour mu tàbbaleen àjjana fu ngeen sukkandikoo ci loolu ñu ni ko xaaral tuuti dinga jot sa tont ñu toog tuuti ñu séen sëñ Njaas say ñëw mu sëñ ma waajur sëñ Mor Mbay Siise mu ñëw nuyoo toog ñu ni ko jëmm ji kat daa am lu muy laaj sëñ Njaase ni lu muy laaj ñu ni ko moom kat nee na jëmm ji ñu toog ci biir kër gi rek bàyyi fi yàlla bàyyi fi yonent bi ci lan lan sukkandikoo ba ni mu ni tàbbal àjjana ëllëg sëñ Yaasin ne que dañu xool ko ba mu mu ne ko waaw yow soxna sa nga ëmbal ñuy wax ne yaa ko ëmbal ak ëmbaloo ko tee ngaa lijjanti loolu ba noppi. Ah, kooku ni ko nan dem ma jébbal ji. sëñ Yaasin ni ko sëñ tax ñu topp ko. Ah. mun ma jébbal ji ndax man ba ma koy def fekk woo ko comme xam nga ko te teewul topp nga ko nan dem ma jox sama bopp. yaa ngi dégg moo tax man la waxuma la jàng xam-xam laa wax sëñ loolu moom lañ soxla ci nit moo tax taalibi sëñ Tuubaa taalibi sëñ tubaa boo gis bu jàngee ak bu jàngul am na xam-xam li ma la wax dara du si dañ waxoon na ko sëñ Madu Gajaga neewoon na ko képp ku ma jox boppam te muy dëgg ci moom saa yu faatoo moo xam jàng na moo xam jàngul am kaan lay nekk bu demee ci bàmmeel nekkum kaan sëñ Tuubaa ko wax kon Eh, Serigne maalik Ndiaye ba ka Serigne Touba woowee ni ko wëral ma ku mën a joxe ñaar fukk juróom-ñett naka joxe dama lay wax ni la waxuma la jàng xam-xam laa wax sëñ Malick di wër ba daan ki nuy dimbali tey ak ëllëg nee moom noonu laan wax ki nuy dimbali tey ak ëllëg nee ku ko man naka jox ñaar fukk juróom-ñett di ko wax ba ci benn buntu kër fekk kooka xam naa du murit mu ni ki ne dimbale tey ëllëg nee ko amal na ko jox ñaar fukk juróom-ñett ko jóge ca biir kër ga ni ko du dëgg ba mu agsee sëñ Malick ni ko loo wax mun ko waxal li nga ma dégg mun ko dama ni ki ni dimbali tey ëllëg nee ku ko mën na ko jox ñaar fukk juróom-ñett mun ko du dëgg maanaam baatu ki ni dimbali tey ëllëg nee lay wetti sëñ Malick ni ko yow li ma wax ngay wax mu ni ko man dam yow da nga ni ñaar fukk juróom-ñett man la du dëgg nga naan mun ko sëñ Malick ni ko bindal ma du dëgg mu bind daal bindaat daal bind kaaf mun ko maasal mu maas muy du dëgg mun ko daal na ñaata la mun ko ñeent mun ko geneen daal gi ñaata la mun ko ñeent mun ko ñaari ñeent ñaata la mun ko mun ko kaaf mun ko ñaar fukk mun ko boole mun ko ñaar fukk juróom-ñett mu ni ko nan dem ma jébbul ji kon xam-xam laa la wax Sëñ Tuubaa nee na su fi taalibe dëgg dëgg dëgg day am day xam moo tax yenn saa yi benn murit bu mel ne man nga xam ni jàngul lu bari suñ ko laajee sëñ Tuubaa mu ne xaaral ma dem seet ko jàng dama la te nga laaj moo jàng déedéet sëñ tubaa boo jébbaloo ci moom di muritam lu nu la laaj ci moom war nga ko tontu ndax sëriñ bi kat yenn saa yi nga dégg yenn taalibe yi di wax ni bu ne nangam ñu ni fu mu ko bind déedéet du lépp la sëñ tubaa bind ak ceexa ngi nii ceexal na Seera Faal sëñ Adama Gueye sëñ nangam fan na sëñ Tuubaa bind maa lu tax ñu gëm ni Seex Ibra ab seex la lu tax ñu gëm ni maam Seex Anta ab seex la nan ma wax fu ko Sëñ Tuubaa bind kon du noonu du noonu mbir mi du du loolu kon yow di mel ni murit maanaam lu la laaj Sëñ Tuubaa war nga ko tontu ndax xel mu jub du wuteeg Sëñ Tuubaa waaye bu xel mu dëngee nag day wuteeg Sëñ Tuubaa kon foo fekk murit sëriñ Touba nee na nii lay mel day xam waaye la ca yéeme nag mooy fa saara saafir mi nag ak daari xolom day sell ci lépp lu yàq loolu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ab taalibe du fekk mbooloo murit muy mu leen di jaxase loolu dafa war a leer de du fekk kantul muhtadin ñu nekk ay jàmbaar ci yoonu Sëñ Tuubaa yi nga taxaw feeñ naa gaa yi jëmul fenn ab murit du def loolu murit ab xolam dafa war a sell ku mu gis jàpp war naa jàpp sax kii bu ko rombee mu ñàkk kon ab taalibe ab xolam dafay sell ci lépp luy yàq muy ñaar ñetteel bi mu teleel xale bi min al afkaar yi foo ko fekk day xalaat yàlla rek ab xolam yàlla du si jóg loolu leer na moo tax yenn saa yi liy dal yenn murid yi mel ni man dangay ngay dégg ñu ni ah murid yi ñoom jàmbaar la ni mais sëñ Tuubaa lañ gën a bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu ba mu nax déedéet kenn gën noo bëgg yonent waaye li am li am suñu diggante sëñ bi ak suñu diggante ak suñu sëriñ yi muy jébbalu moo tax moo ndam ci diggante sëñ Tuubaa yonent bi rek ndax fi ne nii lii may wax nii mën na maa toog fi di wax sëñ Tuubaa suba ba ngoon gaa yi ni kaw di ma xool waaye bu ma tuddee benn sëriñ ña jébbalu ci ñooñe tàq la ko seen sag waaw lu tax sëñ Tuubaa defar kooka ñu tudd ko nga toog di xool ñu tudd sëriñ ba nga jébbal sëñ tubaa defar ko an nga taq la ko saga loolu moom tax diggante yonte rek sëñ tubaa rek du leneen waaye taalib bu mën a doon yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo nekk kon moo tax man la ab taalibe dafay xalaat yàlla waxtu nekk ba ca toppaan mu mun xatte an li rabbihi min al ab taalibe Sëriñ Tuubaa dafa war a dog mbindee fi ngir yàlla waxuma la nag koo romb doo ko nuyu doo seqanteeg ñuy jàmm waxuma la lool de dog mbindeef lépp looy jëflanteeg nit yàlla kese la war a dox defe naa mag ñi toppoon sëñ tubaa bu fekkonte ni yàlla yitteelu leen woon kon duñ am sëñ sëñ tubaa ndax àdduna ji dañ koo dëdd woon ginnaaw ñeent ba ca topp mooy mu sawi yen diinaara aynin bil ma def ab taalibe du bëgg sëñ tubaa nee na ab taalibe junni ak donj suuf la war a yemale léegi nag foofu bu ñu fi taxawee ah soo moytuwul dina am ñu dellu ginnaaw de ab taalibi ab taalibi du bëgge moo tax taalibi woo gis muy coow ak moroomam taalibeem ci xaalis rek wan leen ginnaaw sëñ Tuubaa nekku fa bu fekkente ni bu nu toogee kenn mënta muñal moroomam ñu séq dara kenn mënu koo muñ jox ko keneen ba cay bañ cay xiiroo wuute noonu waxe sëñ Tuubaa ab taalibe Serigne Touba na ab junni ak donj suuf la war a yemale ab taalibe du bëgg maanaam lu la waay gën a bëgg jox ko nit lu muy xëccoo du ab cëram dama ne nit lépp lu muy xëccoo du ab waaye looy xëccoo rek du sab cër soo ko amee doo doo toog toogin wu neex kon ab taalibe du bëggee dafa war a nekk koo xam ni du jël alal def ko ci xolam. ab taalibi du def loolu jël xaalis def ko ci xolam ab taalibi du ko def loolu lu tax loolu du ko def mooy sëñ tubaa dafa fekk yi yóbbu nit safara sëñ tubaa génn ko ci murit yi moo leen li yóbbu nit àjjana ndax ñaara ngi nii yoo xam ne yóbbu nit safara muy rëy ak nay su raam sujjóot ku rëy du ko def koo koo gis mu ci discuter naan nangam rek daa rëy rek waaye rëy summi sa mbaxana raam ci suuf wuti kenn di ko siyaar mu toog ci kaw nga toog ci suuf ku rëy du ko def sunu boroom nee na looy ni fépp suuf wunu ku ko am ci rëy sa xol su ëllëgee doo dem àjjana mag nee na ma danoo nekk njaareem kër di lakk ci kër yu ndunka yooyu mooy kër yooyu fekk suuf kër gu mag Serigne Touba wax mag ñi ne leen dem ngeen dimbali leen jàppale leen nee na ba nu ñëwee sëriñ bi ne ndax suñu borom def nañ ci ñu ni ko waaw waaye day lépp génn na waaye benn saako xorom rek moo ci lakk sëriñ bi nu tax génn wu leen ko ne ñun ko Mbàkke dañ koo jàpp day mu diis ñu wecc ka fa mu yëre yëree nag ñu ne ñu jàpp ko mu woyof ñu yóbbu ko sëñ bi ni kon misaal ngoo ku rëy rek sawara ngay mucc doo doo doo doo mët doo bëtt sawara mukk loolu leer na yëree daa woyof dem. saako ba diis lakk kon ab taalibe bu mu xëccoo bu nu dajeetee lu nu soxla kenn soxla ko na ñëpp soxla ko nan ko bàyyee kenn su ko amee rek ñu ñëpp am nan ko kon ab taalibe du bëggee su ko defee bi ci topp mooy nay gi mu la doon wax ndax nay day yóbbu ni safara sëñ Tuubaa andi àddiya wax naa leen xam ngeen ni yi nga xam ni ñooy bu xaw si yépp ca ruu ya dana dajeeg suñu borom suñu borom rek ñoom ñoom ni leen nag damaa bëgg kenn ku nekk nga wax ma jamono ji nga bëgg dikk ma yebal la ci Sëriñ Tuubaa ni ko man jamono ju mujj ji laa soxla suñu borom ni ko ah ndax xam nga jamono jooju mu ni ko mooy jan mu ni ko ci la bon gi ëpp tàmbali ko wax bonu jamono Sëriñ Tuubaa ni ko looloo tax ma bëgg cee ñëw mu ni ko nooy def ba nu mu ni ko su ma ñëwee dama leen di woo ñu ñëw ma ñaq loolu ñu ñaq ma laaj la ñu jox ma ma jox la nga tàbbali àjjana loolu mooy liggéeyee sañ Tuubaa ak joxe àddiya kon sëñ bi moom lu yóbbu nit sawara da koo dindi ci xoli taalibe yi fexe ba jikko yi yóbbu nit àjjana mu def ko ci ñoom ba ca topp nag mooy soo mu ni murit dafa war a jikkoy suuf suuf dañuy sànni mbalit ci kawam sànni ndox mu xeeñ ci kawam sànni sobe ci kawam waaye soo gasee ba sori soo wàqee boo génnee day weex tàll bañ nañ ko ba suufu maanaam suufu fim sax muy gën a weex boo ne demoon ab sën ñu bale ko ba mu set nga gas a gas ba ak yëpp ñam ci suuf su weex sax muy gën a set beneen suuf ab taalibe na bàyyeeg boppam nit ñi lu ko neex lu leen neex wax loolu la si jublu waaye xolam moo ko moom na fexe mu sell mu ni suuf ku baax dana jaar ci kawam ku bon dana jaar ci kawam jaamu kotub yàlla mooy kotub yàlla waaye suuf danaa dégg rek am murid ñëpp lay jaxasoo rawatina suñu jamono ji ñu nekk ndax fi ne boo xoolee mbooleen mbooleem ñiy di sëriñ Touba ak ñii wax ci sëriñ bi ak nangam soo leen xoolee tey sëriñ Touba defal na leen loo xam ne buñ ko xamoon ñoom ñoo jëkk a gëm Serigne Touba. ba ca topp mooy mu ni suuf ak baaxam mu ni mu ni mu ni am murid ak baaxam dafa war a matale. dafa war a matale ci ceen dafa war a mel ni ab taw buy taw du ni fii suuf la du ni fii géej la du ni fii ker la du ni fii ab jànj la moo tax murit ak baaxam da war a matale amul settee xasaay yi ñu jàng fii tey benn waaye toog na këram weddi sëriñ tubaa xasaay di jariñ ko fa loolu nag mbindum sëriñ tubaa dafa wax ni bari waa na ku toog këram lu mu bëgg am ko te xamul lakkamay daa romb benn bis fu nuy jàngee xasaay sama xasida yi rek barkeb xasaay yi topp ko ba fekk këram di ko defal teraanga yu taxamu ko kon murit ak baaxam dafa war a matale amul settee waaye nag sëriñ bi nag lam ca teg mooy ku mel nii mooy ab murit ku nu melul da koy woote kon nag jikko yii nga yor ndax ak mu ak taalibe nekk ab murit mooy tax jariñu së xalaayi sëñ tubaay soo nekkul murit lépp lépp boo koy jàng yaa ngi seet ndax lii nax wi nax wi jub naag wala nax wi jubut wala nangam nangam murit moom xoolul loola maanaam xasaayit ni mel ci moom dafa mel ni cere ju nu siim moom ndox mu tàng ndox mu lewete ci bokk yam moom nan ko siim mu lekk rek murit noonu lay mel mu amul xool ndax yoonu Sëriñ Tuubaa boo seet di seet léegi nga gis lu tax nga wetti li ma wax lu leer la soo gëstu rek léegi nga gis lu tax nga wetti kon sëñ bi lañ koy gëm waaye nag moo ni nag juróom benn jikko moo wax ni loolu li mu wax da koo tënk ci juróom-benn jikko nee na jikko yii may wax képp ku mu nekk ci yow jàppe naa ne ni doom du ma jur defe naa li sëñ Aliou doon wax sànq ci xasaay sëñ Tuubaa yi na loolu nee na jikko yii may wax képp ku mu nekk ci yow man Ahmadou Bamba jàppe naa la ni doom ju ma jur ba ca jëkk mooy yaatu am murit wër wurta siis am murit du boddee am murit du settee suñu Abdul Mbàkke waxoon naka daayira ba nga fa yóbbuwoon mu ne ab daayira dafa lëkkaloo ko maas daayira yu bari génn nañu ab daayira ñu ngi ci maas suñu Abdul day wax de suñu Abdul daane ni daayira bu demee ba ni ku joxewul lii bokkoo ci ku def lii bokkoo ci ñu génn la subaa ak maas la waxe suñu Abdul laa wax moo tax am murit dafa war a yaatu wurta xatal warut a siis warut a boddee warut a settee suñu junni am ku joxe million am ku joxe téeméer booy tudd tuddal ñépp waaye bul jël karna bi naa diw joxe na nangam diw joxe nangam diw joxeegul bu boobaa loolu ak sette la Sëriñ Tuubaa nee na yaatu naka murit def ba ca topp muy muñ muñ ku ko deful doo am dara ba ca topp mooy tabe waxoon naa ci ginnaaw ba ca topp mooy gëm ngëm yàlla ba ca topp mooy laa biir laa biir nag mooy li nga yéene sabab nga yéene ko ñëpp ba ca topp mooy dégg ndigal Sëriñ Tuubaa ne juróom benn jikko yii jépp jëmm ju mu nekk ci yow jàpp naa na sëñ Moodu Mustafaa ak sëñ loolu leer na kon nag jikko yii moom la sëñ Tuubaa bëgg mel ni kon nanu yaatu tey muñalante bu baax a baax ndax àdduna ku fi nekk dina la tooñ da nga tooñ yàllaa ngi ne ñu ngi koy tooñ mu ne teg di déglu rek kon ku fi nekk da ngay muñalante nit sax boo ko romboon mu def nga gis ko mu nekk ci sofaan rikkuwaay bu dem feneen di ko wax ndax yàlla bu namoon ña ngi koy wax xam ko ña ña koy wax gis ko kon ñoo la koy jëkk a gis waaye yàlla nëbb na la ba gisuñu ko wan la ko yow kon nëbbu ko waaye yàkkamte wu nunul gis kenn ko ñu ne waa xanaa diw nangam ak nangam déedéet ëpp naa def loolu kenn du ko def nanu muñalante nanu nekk tabe kooku duñ ci jaar duñ sori ndax murid yépp a tabe ndax ab xol moo gën a riche nit boo ko joxee sëñ Tuubaa sa jaan wàcc na waaye nag gëm yàlla muy lu am solo sëñ Tuubaa kat ku mus a gërëm sëñ yàlla yu dana naa am nga ngërëmul yàlla am nga ngërëmul yonent bi am nga sama ngërëm sëñ tubaa loolu gis nga ñun murid doon am fulla de ku la naa tàq ak sëñ tubaa nga bàyyi ko sëriñ bi nag yitte ju rëy jooju ñu am ci moom ju ko rawal am ci suñu borom lépp lu na dox digganteem ak suñu borom mu bàyyi loola ñun kat am nañu fulla ba lu na dox suñu diggante sëñ tubaa ñu wàcc ko sëriñ tubaa fulla ju raw la am loola ku na dox digganteem ak yàlla mu bàyyi noppi nag ñu laa biir laa biirante ndax lu am solo la nit soo ko gisee muy def lu mu wërta def bu jéebaane fexeel ba gis ko nekk sëñ bi kat yow sama mbokkam taalibe nga te li ma yéene sama bopp loolu laa la yéene gis naa la nangam nga koy def su ma sañoon nga bàyyi ko su boobaa boo ko waxee waxi nit su ëllëgee bu ko naroon def sax du ko defati su ëllëgee mu mel ni yow waaye doo ko da nga kafee dem ca gaay yi ni maa romb diw muy def nangam ak nangam loolu kenn du ko def nanu laa yéente biir loolu lu am solo suñu biir ba ci topp nag mooy dégg ndigal loolu nag mooy lépp murit kon jikko yii Sëriñ Tuubaa lim nii képp ku mu nekk ci yow jàpp naa ni doom ju ma jur yàlla nekk ci ñun ñu ngi sant bu baax di gërëm mboolem lu fi jàng ci xasida yàlla na ko suñu borom nangu ful ko te it nag mu nekk sawaaban laa yéreem muy tuyaaba joo xam ni nit ki day dund ñu koy bindal mu dem ba faatu nekk bar sàq ñu koy dundal ba yamal xiyaam ñu koy bindal ba karoog muy dem àjjana kon yàlla na yàlla nangul la waaye nag ñu ngi ñaanit ci barkeb Serigne Touba bis bu tedd bii nga xam ni mooy suñu lépp amul dara moom muy bisu màggal mu ngi ñëw de fii ne benn taalibe ji ko taalibe boo gis ji koy saxaar la yor léegi ilaa Touba rek kon nag bis boobu wala muy ñëw lépp luñ ci yaakaar ci ay xéewal yàlla nañ ko sëriñ bi sotti te mu lew nu domm nag te te te nu fekk ko jàmm te def ngir ji màggal ndax bis la boo xam ni lu ci waay man na ko def lu ci waay mënul na ko def ndax amul lul moom ndax Sëriñ Tuubaa nee na mooy bis bu du tas wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa